déglu maa ngi nuyu ku nekk ci ak tantan di jiital ci nuyoo bi la xalif général de Tidianes sëriñ Babacar Sy Mansour di ko ñaanal yàlla mayal ko fan yu ak wér di nuyu di ziyaar njaboot maam Seydi Hadji Malick di nuyu képp ku fi teew di jël nuyoo bi di ko teg ci loxo Modou Gueye di ko teg ci loxo Matar juuf di ko teg aussi ci loxo Assoukane Sall di ko teg ci loxo Mame Ngodo Taxa di ko teg ci loxo aussi Ousmane Faye ak ci loxo Daouda Mbaye di leen nuyu yéen ñëpp di nuyu aussi te di kontaan si teewaayam muy Mansour Dabo di ko sant comme ni ñu ko waxee il y a trois semaines si la déclaré officiellement génn Yewwi Askan Wi ñëw dugg ànd defar ànd ñun pour ñu jàppale la coalition Benno Bokk maa ngi bëgg loolu ci daje bi di si sant Niass mi nga xam ni tey su ma toogee Ousmane Faye si weeru koor gi mu ànd ak avec un groupe de plus de trente jeunes ñëw ma recevoir la ñu toog waxtaan ñu xamal ma ni ma ñun kat Pastef lañ bokkoon waaye gis ni ko tey fas nañu ànd ak yow bokk ànd defar pour jàppale son excellence le ma ne ko woon nag dinañ jàpp jour boo xam ne officiellement di ngeen mën déclarer seen adhésion ci mouvement And Defar tey jii loolu dox ba Abbas aussi am yéene bi ànd ko comme ni ko suñu grand frère Mama Gueye te xam bu baax ànd ak ñoom Khalifa ñoom Cheikh Tidiane ñoom Khalifa ñoom Babacar ba tey ñu mën recevoir ñoom Daouda Mbaye le mouvement ànd bokk jëf di leen sant ci seen engagement yi ngeen fësal tey pour fas yéene ñëw ànd ak ñun si le mouvement ànd defar pour la jàppale le président Macky Sall ñun nag suñu mouvement mi ngi tudd ànd defar te yaakaar naa ni ànd defar ku la si bëgg na jàmm bëgg na lu baax waaye ñeneen ñii nag li ma gis mooy ànd yàq la ñuy woote te ànd yàq nag fu ñu si woote naa di ci ma fi gis léegi la kenn mënut a comprendre damay faral di wax ni booy dégg ñu naan Macky Sall dictateur dictateur mais dama li gën a yéeme mooy dictateur yi ma ngi a ci opposition ndax ku nekk am nga sañ far ak ki waaye pourquoi mënuñu nangul ñun ñii tamit ànd ak le président Macky Sall loolu je pense que ñu koy woowee mënuñu ko traîner lu dictature tey kenn amatul sañ-sañ wax sa xalaat bu suñu sëriñ waxee ñu saaga ko bu suñu sëriñ waxee ñu xat ko ku wax ñu saaga la ku wax ñu dëkkal la fu la dëkkul defe naa ni dañoo juddu fekk Sénégal nii mu mu nekk dëkku jàmm mu nekk dëkku salaam de Senghor à Abdou da Abdou Diouf Abdoulaye Wade defe naa ni fii politique bi toll léegi kenn mus ko dund politique ni ñu koy xalaatee te ko xamee mooy débat d'idée la projet ngay wane wala bilan waaye wan woo projet wan woo bi ngay woote nit ñi rek mooy te defe naa ni jot na nit ñi yeewu ndax réew mi soxluñ fa dara lu dul jàmm soxluñ fa dara lu dul respect bu doon tey ku mën sa morom duma kon ñun ñëpp kenn du dund tey ñu di donc li nit ñuy woote mooy jàmm lañ soxla si réew mi respect lañ soxla si réew mi Tiwaawan nag dafa nekk ville spéciale yàlla boole ñu mag mu baax muy Maam Seydi Hadji Malick donc tey tëddi fii képp koo xam dañ fiy jóg fi woote fitna defe naa ni booy xalaat tuuti war nga bàyyi xel nitu yàlla moo tëdd fii si dëkk kuy jóg pour yàq dafa war nga bàyyi xel nitu yàlla pur moo tëdd si dëkk bi donc nañuy fexe sauvegarder suñu teewoon ji protéger suñu teewoon ji ba jàmm rek moo fi am ku fi jóg pour yàq ñu tam ñu jóg pour defar wan ko na ko kenn ko yàq donc loolu lay woo ñëpp loolu lay woo jeunesse réew mi nag toll na foo xam ni tey li fi nekk mooy ñu jëm waxtaan ak jeunesse bi conscientiser la jeunesse ndax le président Macky Sall yàlla moo ko def ci bopp réew muy doxal xeex bi ñuy xeex yëpp lépp li ngay dégg mooy waxi troisième mandat te defe naa troisième mandat kenn waxagul waxi troisième mandat ndax ndeyu li yi sax waxagul waxi troisième mandat. biñ fexe laa ne amul droit trois def troisième mandat ci lañ toog tàngal tàngal teru fu mu ji dem voté biñ voté yàlla def li muy def donc man tey li ma gis mooy ku nekk li nga gëm gëm bu vote jotee bu élection jotee ku nekk dem ki nga ki nga àndal nga ñun ñi nga xam ñun la yàlla boole ñu àndal Macky Sall comme ni ñu wax moo nekk mu jar nit mu yàq nañu jar ko suñu ñu fexe mu defaru ñun suñu président bi ñu àndal li ñuy xeex te di ko bëgg. mooy ñu fexe le président Macky Sall am jàmm fexe ko président Macky Sall li ñu bëgg si réew mi ànd ko moom doxal ko yàlla may ko si ndaw loolu mooy li nga xam woon nit ñi beneen bi si topp mooy tey mouvement ànd defar yàlla def na mi ngi yaatu ñu ngi si liggéey liggéey bu am te nee naa ngi waajal def caravane bu mag def événement bu mag. ndax élection locale yi ñu jën boo xoolee si ñun ñi nga xam ñoo doon candidat y avait man y avait Diop si y avait Diagne aussi Wallu Diop si bi yàlla jox teewoon amoon na sept mille et quelques voix man ma ñëw en deuxième position am six mille cinq cent voix Diagne si am cinq mille et quelques voix te boo boole ñun ñett suñuy voix boo ko cumulé rek daanaka vingt mille électeurs élection législative yi ñu génn bu ñu demee ba tey yeewi askan bi gañe Tivaouane jiitoo ñu presque deux mille voix damay jàpp ni yaa problème suñu biir donc na ñun waa coalition Benno Bokk Yaakaar xoolaat suñu bopp tey jii liggéey bi mooy lii am fexe nu ñuy massifier di jëli si opposition bi andi pour réer ñu jëli la andi la nu ñuy gindee nit ñi conscientiser nit ba ñu xam ne lii président Macky Sall def si li nga xam ne yéene woon na si projet ak li nga xam te ni ñu koy si ak si bilan mais mbir mi nañ bàyyi élection locale bi suñu gannaaw tey fi ñu jëm man soxlawu ma jëm soxlawul jaay soxlawul kenn soxlawul président Macky Sall moo soxla nañ boole suñu ay bëgg-bëgg fekkoon na ni fexe ba nu ñu fexe ba suñu président am ndam tey. xeex bu ko bëggee xeex dañ bàyyi bu fii quatre ans élection locale di ñëw lu ñuy xeex ñu xeex si waaye débauché débauché naa militant ànd defar yóbbu si Diagne Peulh yóbbu si lan la lay rapporter dara perte man lay andi bu dee da ngay yaakaar boo ko defee peut être dina la amal ndam ndax li nga am ba pare da nga koy téye loo amul nga dem wuti ndax man sama militant militant Diagne si ñëpp si. ñëpp Macky Sall yi nga sotti donc pourquoi ñëw ak defar naan xaaral ma xëcc Lamina wala ma xëcc kenn lan na lay jëriñ liggéey bi mooy fexe ba opposition bi ni ñuy fexe ba jël si opposition bi andi mais pas di jël si Benno Bokk Yaakaar yi te loolu c'est valable pour ñi nga xam ne ñooy leader politique yi nekk si Sénégal yëpp nañu teg këréel yi fële guerre de positionnement yi ñu teg ko fële xool li nga xamante ne mooy ñu jëriñ li nga xam ne mooy jëmale coalition bi Benno Bokk Yaakaar kanam mooy ñu ànd bokk ndey bokk bay yéenante boole suñuy jeunesse suñuy femme suñu yëpp ñu doon benn di yëkkatandoo di tegandoo loolu mooy li nga xam mooy mën a jëriñ ëllëg en tout man maa ngi sant Ousmane di sant Daoud loxo di ngeen ma tàllal nangu naa ko te di ngeen xam ni am ngeen partenaire te di ngeen xam ne aussi am ngeen leader leader nag soo koy dégg du question ni rang bi nit ñu occupé wala position bi nit ñu occupé leader leader soo koy dégg mooy action yi nit ci loolu mooy mais du question du ministre la wala DG la wala maire la loolu mooy li léeru mooy ki nga xam ne yaa ngi mën a ay action te yaakaar naa ni fii si dëkk bii fii Sénégal nit ba mu tuddoon leader ndax action yi fi mën a ministre def ko DG def ko maire def ko loolu loolu la yàlla def donc day jàppale ni vous avez un leader vous avez un partenaire te li ngeen yaakaar ba bàyyi fi ngeen new ñu ànd ak ñun incha allah duñ leen di soxla jamais dañuy àndandoo mais dans la main xeexandoo taxawandoo fexe ba li nga xam moom lañ bëggal Sénégal muy jàmm li nga xam lañ bëggal Sénégal muy développement pour que yàlla may ñu tam ànd ak le président Macky Sall ba li nga xam moom la yéen Sénégal yàlla mën ko eggale tey suñu woo jeunesse bi li nga xam ne tey Sénégal mosu gis ay télévision nga gis ay film wala boo voyage doo ko gis tey yàlla dogal si vision président Macky Sall ñu fexe ba am fi TER fexe ba am fi tey BRT fexe ba am fi ay stade fexe ba am si ay bëree bëri si ay infrastructures yoo xam président Macky Sall donc te dañuy nangu tey bàyyi ay nit yu taxaw fële jóg pour yàqu loolu je pense que waruñu ko nangu le président Macky Sall ñu def Sénégal dafa ñu kuy jullit yàlla def nañu jullit lañ yàlla def ko si daal bi di jàlle mais damay jël exemple si Tiwaawan fii yàlla day def gàmm dañ dañ daan am gàmm am problème suñu dugal suñuy gan par exemple bi mu ñëwee li mu njëkk a def teg benn programme tuddee ko programme pour la modernisation des villes religieuses taxaw te ne Tivaouane def ci benn résidence bu am solo xam ne tey fu kan mën a jóge bu jo bàyyi dañ ñëwoon fii sax ñu dugal ko si résidence bi ak yëpp ko foofu loolu Macky Sall moom ko defal jumaa ji ñuy tabax mu yëkkati cinq milliards de francs CFA jumaa ji donc loolu su ko di def sa kilifa mënoo def lu sagal lu jàppale ko démb xaw tey li xew ko ba ngir boo gisee li mu fa defar francs catholiques yi tey képp kuy catholique boo eggee foofu nga soxal seen il a pris des milliards defaratal leen fi ngay xam ne fa la ñuy defee seen pèlerinage bi nga dem tey ngay dugaleur nga dem si Comariens yi nga dem Médina Gounass li mu fa def defe naa ni kenn waxtu si santé ñaata hôpitaux la président Macky def si sport ñaata stade la def si infrastructure boobu li gën a yéeme nag mooy pour la jeunesse tey maison de la jeunesse et de la tey bii ne kër Cheikh maison boo xam ne mi ngi coûté li mu bon bon un milliard la maison day coûté mu defal ko pour la jeunesse nga xam ne lépp lu jeunesse soxla muy salle de sport muy salle de spectacle muy auditorium muy lu mën a xew lu jeunesse soxla mu ngi si maison de la jeunesse te yàlla def na tey jaaw ñu koy réalisé te suñu yàlla dimbalee fii ak ay weer balaa at biy jeex dinañ inauguré maison de la jeunesse boobu loolu nag su ko ñuy defee dañ koy sant gërëm ko jeunesse bi nañ xam ni ñiy woote fitna amuñu programme amuñu projet te nit bu fekkee da nga am bëgg dëkk man de ki ma gëm te mën a ànd ak moom mooy si ak yi muy posé si nga xam ne bu lakk amee mooy njëkk a ñëw fay lakk bu problème amee mooy njëkk ñëw andi solution man de kooku laa mën a àndal ki nga xam ni tey andul projet andul li muy woote rek kaay leen xeex kaay leen reyante kaay leen di dafa naan am yar président am vision président bu yéene Sénégal président bu bëgg Sénégal nañu ànd bokk day bokk bay jàppale président Macky Sall maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di wax jigéen ñi nañu taxawwaat góor ñi nañ taxaw jeunesse nañ taxaw lii ñu def tey nañ ko multiplier par mille fu nit nekk te bokk su opposition nañ fexe ba jëli ko andi ko yee ko parce que gars yi yee yeete wuñu li ma dégg ñu naan yee yee wuñu kenn de mais ñun dañuy créer coalition yee nit ñi yee Sénégal maanaam ñi yee ñi nga xam yee ñun ñu yee leen fexe ba jëli fànn donc loolu laa amoon ma ci doon. maa ngi leen sant di leen gërëm asalaamaaleykum wa rahmatulah